Ces armées, par leur mode de recrutement sur l'étendue du territoire national, sans discrimination aucune. recrutement bu ñu jagleel suñu armée yi ci biir réew mi amul benn xaj ak seen ndaxte ñëpp benn lañ. qui inspire le thème de cette édition les forces armées au cœur de la cohésion nationale. loolu moo wundu sax thème bi nga xam ne moom la ñu tànn ren lu am solo la ndax ñu ngi ci jamono boo xam ne dafa tëradi lool. ci jamono boo xam ni guerre yaa ngi fépp ci jamono boo xam ni itam dañoo nemmeeku ay crise de valeur. par l'abîme de la guerre un monde de turbulence et d'incertitude un monde marqué par la crise des valeurs.